sëriñ Saliou ñu di la nuyu di nuyu sëriñ Jili mi nga àndal di nuyu Maxtaar mi di leen yóbbante nuyoo itam ci Ablaye Ablaye Sylla eh, di kontaan ci ñëw gi ngeen ñëw fii ndax wax dëgg yàlla eh, donte seen soxlaa leen yëkkati ñun yëg nañ ñëw gi ndax Ablaye la jëf na seen Sidi Muxtaar loo xam ne ku xam sëñ si ku fekkee sëñ Sidi xam ko nga nga nga nga di ko gis muy wax ngay wax xam nga ne jëf na ci sëñ Sidi loo xam ne du wax kenn jëfu ko ci waaye ko ci jëf néew nañ kon bu boobaa ñun te sëñ Sidi Muxtaar jël ñu def ñu noo xam ne defu ko kenn laa mën naa ko wax bu ma neexee ndax li mu ku ne sa bopp nga xam te xam nañ fan lañ fan lañu jële ak fan lañu yóbbu kon kooku koo xam ne dangaa jël sa lépp jox ko jëf ko nag du ay waxi kese ndax man maa ngi nii xam jëf jooju mu jëf yàlla sunu borom mi tax mu jëf ko mu xam ko musu koo manifester fenn bu ndaje woon ci mbedd duma ko xam waaye xam naa jëfam te yàlla du fay wax bàyyi jëf kon nag boo leen dee sàkku dara ci senegal ñëw ci fii ci njabootu sëñ Baara eh, sàkku si ngeen ko fa ngeen ko war a sàkkoo jëggaaniwu leen ko defu ko defu leen ko dara fii da ngeen fee dëkk fii da fee dëkk ndax sa seen bàyyi ngi nii lu man fii la ko mane dooleem jëpp fii la ko jeel ci quartier bii musta génn fii dëkk feneen li Tuubaa la dëkk de waaye guy mbind la dëkk nag te loolu nag ngeen xam ne xam nañ ko te yëg nañ ko te jàpp nañ ko itam waaw Ablaye nag di ko baax xam nga jamono ji moom ku yàlla defal ndimmal loo wax ci moom ñu ne nangam waaye koo xam ne bu ngeen dajee woon ci mbedd doo ko xam kon kay loolu doy na seede ci ni jëfam ngay wax waaye waxoo leen te dafa am jëf yoo xam ne nit ki koy jëf bu yoroon réew lu bari mën naa wàññeeku ndax yoroo réew yoroo institution yoroo dara ba pare am employé nangami junniy nit yoo xam ne bu seen kër buñ ndëkkee yow buñ añee reere buñ reeree yow buñ ndëkkee yow kon yow léegi bu lépp nekkoon ci sa loxo lu bari mën naa dañ lu bari mën naa dañ kon nag nee ko ñoo ngi koy ñaanal fas yéene itam lu mu nekk nu ànd ci ak moom na mu nekkee woon ak sëñ Sidi Muxtaar ca lam doon ca ca di ànd ak moom ca la mu nekkoon nun ñi itam ci loolu lañu ñu moom ci lépp loo nga xam ne ma nga ci ngir jëmmi sëñ Seydi Seydi Muxtaar ngir jëmmi yàlla sunu borom itamit nag waaw te di ko di di ko ci ñaaral bu baax itam te di ci rafet njort itam ndax ku am tuuti bokkook ñëpp boo amoon lu bari ñëpp am la gërëm bu baax di gërëm sëñ jili itam ndax lu moom mii ci sëñ Saliou bu nekk ne lu baax rek la xam di ko fi dox di ko fi wax di ko jëf itam ànd ak ko bi yar ak i tegg na ko taalibe nag waaw moom xam na ne duñ ko waxal lu mu defut waaw yow mii tamit nag topp say kilifa moo waral nga xalaat sa kilifa xalaat dara ni dama cay sóobu nga jóg eh, eh, jotam bu ko ko mayul fa mu war a taxaw fépp mu taxaw fu mu waroon taxaw nga taxawal ko fa mat ko sëkk yar ak i tegg nag ki lépp loolu xam nañ ko te jàpp nañ ko man nag ñi nga xam dañuy wax la ñuy wax nekkul te ñoom wala dañuy wax dañ cee uh, di nëpp uh, di raaye ak ñuy ñaas ak man du ma ñooñu man du ma ñooñu man lu may wax mooy dëppoo ak li may def man kenn séenéwu ma yoruma yëfi kenn kenn séenéwu ci lu ma bëgg a wax ma wax ko man yor yëfi kenn laa yorul ci laa koy waxe nañ ko teg fu leen neex man kenn du ma séene ci lu ma bëgg a def def ko mbaa lu ma bëgg a wax a wax ko man dencu ma yëfi kenn bay teggi mbedd man du ma doxantu ànd ak nit aw ma chauffeur aw ma bëkk néeg aw ma garde corps aw ma caabi du ma wër man maa ngi nii nii fii nga ma fekk nii allah kulli alin ci nga may fekk rek te boo fekkutoon may wax ak nit ngay fekk ma yor ko ndax sama sama warab sax moo ñëwul man toog te jànguma waaw man sama warab sax ku ñëwul waaw te fi mu ne nii nga ma gis nii ki may saaga ak ki may tagg ñoom laa yemale duma ci wut bànneexub kenn yàlla lay wut bànneexam waaw lu doon lu nekk nag ab tolluwaay la man man foofii laa toll man waaw foofii laa toll kon kon kon kon kon eh, ñoo ngi leen ñoo ngi sant bu baax te di la digal itam lii nga nekk gën cee góorgóorlu ñun lu am téye suñ kilifaa ñu ko may kon nii nga téye sa kilifa góorgóorlu ci waaw waaw ñun lu ñu am voilà yàlla ñoo bokk lépp waaye nag ko cër bi ak euh, nangu ko lépp daal lu ñu am ki ñu am rek lu lu ñu am ba nit di ko xool nangu kilifteef moo ñu ko te ba tey jii mooy wéy danga am lépp man lépp astaghfirullah man lépp sax du yomb am lépp itam du waaye da nga am lu bari man lu bari waaye da nga gis koo xam ne amul lu bari mënul lu bari waaye sa kilifa sa am lu bari ga ak sa mën lu bari ga du feeñ ci kanamam da ngay waaf ci kanamam mu jaar ci say tànk ndax fii bu fekkoon daa am constitution dañ naan constitution bi toppe la waaw moo ko fondement bu fekkoon ni constitution am na ci yoonu murit tarixa bi bu amoon constitution fondement bi dañ naan toppe la complément bi pas-pas la doon téeméer mu yóbbu ko bu dee benn mu yóbbu ko bu dee ñaar mu yóbbu ko waaw te taalibe boo mut pas-pas ma maa ngi la ko mën a misaale ci fas wu daw ci course ba raw te ab sooke nekkut ca ko ku koy fay bu ñu doon daw waaji fas wi daan ab sookeem fas yëpp àndandoo di daw mu raw du tax ñu fay ko de ndax ndax wàcc arrivé wul akub sooke ak ak wëñ boo ko boo ci doon ñaw fasoo cat li nga roof ko boo ñawoon fii ba ndakaaru boo roccee mu topp loolu mooy ah boo mooy complément yoon bi waaw bi ah, voilà waaw bi mooy toppe waaw لمن كان لي بالجود وهو سكور نسوري وتايدي ويسيل الردى من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يبير أجاب زمدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للاله يسير سوري وايامي غدا لي شواهد بكوني عبد الله وهو الشهيد